abonné daal diisul doo fay dara bësal rek bu ko defee loo ñëwati nga mën caa am jaaxle jeex na recette bi yaay ci ko yore kaay leen ñi dem abonné alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam jigéen ak diinaam maa ngi nuyu ñëpp leen wax wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen wax ne tey jii ci ñun ñi nga xamoon talaata lañu woor tey la fukki fan ak juróom ñaar ci koor gi ñi ooroon talaata ñi oron altine mom demb lo won sen fuk ak juroom ñaar way ñun ñi nga xamne talata lañu or te la sun fuk ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar bi nak dafa nek di bis bu mag mag mag mag ci l'islam ban bis la moy bis bi nga xamne ci la xare badar amon xare badar bis bi la won fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor la woon tombe woon juste bu ren bi damay wax ne dafa nekk bis bu màgg parce que dafa tombe woon ak weeru maris mars te ren tam dafa tombe ak weeru mars xam nga daaw xare badar bi muy am eh, fukki fanak ak juróom-ñaar yi tombe Eh, eh, bo sété kon eh, ci at yi li passé mu ngi tombé won ak wéru avril te xare badar normalement mu ngi tombé hon ak wéru mars 13 mars la hon 13 mars moo nekkoon xare badar bis bi yonent bi di génn di xex ak yiifér si mu ngi tombé woon ak fukki fan ak ñett ci wéru tuba wi ñu nekk mars dégg tombe ak fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor wa doon bésu altine mu nekkoon di bés bo xam ne bi alquran da ci bàkku aaya baa ngi naan wa ma anzalna ala abdina yowmal furqaani yowmal taqal jamaan dégg nga alquran a ngi furqaan yowmal furqan maam bis bi nga xam mo takale deug ak fen motax umar ibn khattab radiyallahu anhu bi nga xamee ne bii mu ngi ci nguram gi euh, mo nek khalifa bi alors lettre yi koy dikkel te bobu arab xamoton dat dañ dan wax hatam juma comme niñ dan wax ñun hatam juma ma hatam nangam legi omar dajé ak sahaba yi ne len dañu bëggoon dal ñu ut tarikh carrément bo xamné ci l'islam mom lañuy bindé ñu ne waaw ku nekk wax ne a ah, nañ jël rek at bi nga xam ne ci la yonent bi judd rek ñu ko ñu def ko taarix rek naan at atam eh, at mi yonent bi juddoo comme ni nga xam ne atam Eesa mi ñu ngi koy def noonu ñu sëgg rek ñu ne ñi ne nañ jël at mi yonent bi génnee àddina di ci da ci date Omar sëgg rek am ku ne nañ jël atam gàddaay ga Omar ne waaw kay at moomu moo tàqale dëgg ak fen waaw gàddaay gi moo tàqale dëgg ak fen moo tax lislaam ci gàddaay gi la ñuy agressé date seen date yi yëpp ci lañ koy def euh, xare bii nag mu ngi amoon ci ñaareeli at ci gàddaay gi biñ gàddaayee bàyyi ko màkk dem medin ci ñaareeli at ba ci weeru koor wa ci fukki fan yeeg juróom-ñaar mu tombe woon ak bési altine tombe hona tris ci mars alaykum salam ci la xare badar aha la bes ci la xare badar amon xare badar bobu nak euh ganna bo ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam amna ndigal ci yalla ne ko nak depp nga dala oté ba légui fukki fan ak ñet fukki at ak ñet nga def mak ñu ngi lay xex yalla joxul la ndigal pour nga fayu nga gàddaay ñëw Medina am fi ñaari at yàlla joxoon ndigal pour nga fayu tey nag ndigal wàcc na jógal attaqué sa noon yi ah bokk ko yàlla waxee nag boobu la takk nag ne nag ale kon nag dégg nañ ne si génn nañ waa Màkka génn nañ demoon njëggi yonent bi ne nañ leen dogale yàlla joxe na ndigal nee na nañ xeex ak si moo tax imaam xasan mas nay wax Cheikh Abdou Barhama ne ko taalibe lépp loo xam ne lii mu ngi koy def ci ndigal rek bu ci konoona lotu sax siru ndigal bi dina ko aar ba yàlla dimbali ko mu mottali ko yonent bi sallallahu ndigal rek la doon xaar waaye fitam yi moo rawoo gaynde dégg nga waaye masta fayu dëpp ñu koy bundu waaye bi ndigal wàcc aaya bi wàcc ne ko fayul acca attaqueel boobu nag la takk nag loolu mooy xare badar xare badar nag nekkoon na de xare boo xam ne bu daw yaram la waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi bi mu wàcc see eh, ci badar badar place moo tudd badar moo tax ñu koy xare badar bi mu wàccee ci ci place ba fekk yàlla jaa ngi xaw a xiin asamaan saa ngi xiin ah léegi nag mu taxaw foofu dafa am bërëb boo xam ne dafa am suuf maanaam dafa am beeñ am beneen bërëb boo xam ne dafa am kekk kekk maanaam amul beeñ yonent bi dem taxaw ci kekkali foofu kenn ci saxaaba yi jege ko xabaab ne ko yaa rasulallah fii nga taxaw nii yàlla la ko digal wala wala xelaat la rek yonent bi ne ko xelaat la rek mu ne ko kon nag maa ngi lay jox ne la fii buñ fi taxaw nañ dem ci beeñ ba ñu taxaw fa ndax asamaan saa ngi nii xiin suñ taxawee ci beeñ bi bu yàlla ji tawee beeñ bi dafay deg te fii ñu taxaw bu yàlla ji tawee dafay ratax mu ne ko waaw mu ne ko te ci suñ gannaaw foofu la ndox mi nekk su boobaa dañuy dox ci diggante noon yi ak ndox mi ñoom duñ mën a naan te ñun buñ bëggee danañ naan loolu de guerre la yonent bi d'accord ci ak moom loolu loo ciy déggee mooy boo àndeek mbooloo del déglu seeni xalaat moom mu ngi noonu mooy yonentu moo leen gën moo am wax yi mooy wax ak malaaka mooy wax ak yàlla waaye teewul mu ngi noonu di déglu xalaatab doomu aadama kon nag sa kër sarta sa biir kër del diisoog say soxna del diisoog sa njaboot gi boo nekkee ci sa entreprise del diisoo ak say emploi lépp lu nga xam ne li yàlla boole na la ko ay jaami yàlla da ci diisoog ñoom wa shaawirhum fil amri loolu soo ko defee rek roy nga yonent bi su alayhi wa sallam <laughs> yonent bi ànd ak moom nee na nag nañ déplacé ñu déplacé dem taxawi foofu acca léegi nag seen matukaay yi matul parce que kat ñoom ñett ñetti téeméeri nit lañ ak fukk ñett moo leen ñeenteel ñetti fukk ak ñett yonent bi moo leen ñeenteel xanaa loolu bariwut yéeféer si ñoom ñaata lañ junne nit lañ junne junne war a dajeeg ñetti téeméer rek fukk ak ñett ak seen général bi di yonent bi sallallahu alayhi wa ñaata luñ am ci fas ñaari fas kese lañ am ñaari fas ñu nga bàyyi ko Médine ak juróom ñaar fukki gëléem loolu lañu am euh, dañuy awlante war yi ñi waree tuuti wàcc ñi war wàcc ñi war wàcc ñi war wàcc noonu lañ doon def bàyyi foofu Médine ñëw ba ca palaasu xarekaay ba biñ dikkee nag njëgg mi nga xam ne moom lañ doon dogale njëgg mi raw na maam Abu Sufyaan moo jiite woon euh, njëgg ma moom fexe ne ba poccatiku rek dawak ak njëgg mi njëgg mi dem Médina ñu ne kon nag xare bi nañ ko fomm comme si njëgg mi raw na ñun raw nañ daal bu ñu attaqué abu jaal génn ne mane ne fa ko xare am muhammad mii di ma dogale day dogale sama nit ci àll bi dinaa ko wan ne ko tey duuma moromam dinaa dem ba ca badar man naan sama sàngara si sama géel yi wuy ma ma bàkk rey ko ñib si ñu xam ne duuma moromam bàyyi ne ndekete yee duñ ko woy dañ koy jooy te lañ ko rey de dégg moom fekkeewul xare bi sax ndax biñ dikki ci guddi gi ni ki biig ci guddi lañ dikk ci àll bi nag ñu campé ñaari armée yëpp ci guddi gi lañ fanaanal yonent bi ci guddi gi la la ànd ak gaa yi ne leen gis ngeen rëdd jël xetam wi rëdd ne fii fi la ñuy rey Abu Jaal fii fi la ñuy rey Umayata fii ku nekk rek mu rëdd ne fii lañ koy rey fii kii fii lay daanu kii fii ku nekk fa mu rëddoon ne fi lay daanu rek fa la daanu Abu Jaal moom fa mu toog ci guddi gi den den naan sangaraam sa géel yaa ngi koy woy naan ko doo moroomu gaa yi doo moroomu gaa yi ñaari xale daal di ko jege <laughs> ñaari xale eh, daal di ko daal ko jege mu yaakaar na ñi ci ay xaleem ay xaleem lañ ndekete xale yi waalaan saar lañ ay xale yi xale yi yonent bi la sallallahu alayhi ci saaba yi lañ bokk kenn ki mu ngi tudd Muaz ibnu Amru ibnu Jamuh kenn ki mu ngi tudd Muaz Afra ñaari xale yi jege ko rek ne ko waa yow dañoo dégg ne yow da ngaa bañ ci yonentu bi mu ne ah yéen ci ñooñu ngeen bokk ñu ne ko waaw ay maa tey maa tey bañ ko xale yaa ngi yore ay ay ay xeej euh, ay ràbb yu ñëw kiy jëm ci ci ci ci ci wàllu càmmooyam gi ci boori res bi rek kii itam jëm ci wàllu ndeyjoor bi rek ñu daw tàppi mu ne xale jàppaleen jàppaleen xale yi xale yi xale yi xale yi ne fef daw mu ne xale yi xale yi lor nañ ma foofu la daanu deret jàngee gës-gësi mu nekk fa di sukuraat di sukuraat di sukuraat ba ci ëllëg si ci ngoon bi xare bi jeexee ca la ko Abdullah ibnu Mas'ud fekk mu ngay bërbëri foofu mu ne ko noon ab yàlla bi daal di yéeg ci dënnam bi mu ne ko yéeg nga ci siis bu la jomb mu ne ko waaye lislaam moo ma ko may tey rocci jaasi moom Abdullah ibnu Mas'ud di ko rendi mu ne ko xamuloo dara seen seen yi na ngi ñàkk ba léegi yéen ñi ànd Muhammad sa jaas ji mënul may rendi jëlal sama jaas ji moo mën moo mën a rendi <laughs> Abdullah ibn Mas'ud jël jaaseem ja rendi ko ci daal di gàddu bopp bi nag di ko wotat xattanut ko sax di ko wotat ba ci yonent bi sallallahu alayhi ñu ko noona bi yàlla baa ngi dégg nga ñoom rey nañ ci yéeféer si keroog juróom-ñaar fuk juróom-ñaar fukk ci sangi màkka yi jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk te saaba yi ñoom fukki nit ak ñeent rek a dee ci ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo doon armée bu ndaw bi fukki ak ñeent rek ñoo dee ci ñoom yonent bi nag juróom fukk yooyu ñu rey ci yéeféer si mu ne leen jël leen leen ngeen sànni leen ci ci teen bi benn kàmb gu nekkoon foofu benn teen ñu sànni leen fa ñoom ñëpp waaw alors saaba yi nga xam ne nag seen bakkan wadd na fa fukki nit ak ñeent ñooñu yonent bi moo leen suulal boppam foofu ca Badar ba léegi ñi aji dañ leen di ziyaar foofu mhm. juróom-ñaar fukk nag lañ jàpp ci université def leen jaam yóbbu leen yóbbu leen màkk yóbbu leen Medina kat nga dégg ne kat xabbaas ci bokk de xabbaas bàyyi bàyyi yonent bi xabbaas <laughs> nga xam ne moom bàyyi yonent ñu bokk ndeeg bàyyi mu ngi ci bokk de mu ngi bokkoon ci armée yéeféer bi ñuy jàppaale ko euh, yonent bi nag ne leen fokk rek ngeen ay joxe njot da ngeen di joxe halal ku ci amul alal nga jàngal ci siñ xale yi fukki nit fukki xale buñ feree iji rek loolu mooy sa njot nga ñibi Abbas nag ne ko ah sa baay xamul dara de mu ne ko kan sama baay xam na de yaa ngi fàttaliku ba ngay bàyyee ko sa bi nga ooyee sa soxna sa ne ko ne fii laa suul sama alal ji su ma delsee baax na su ma delsiwut oh, njaboot gi nga xam ne fii laa suul alal ji mu ne ko dee loolu ku la ko wax mu ne ko loolu yàlla ma ko wax mu ne ko yàlla jooju de tey ñu bokk kerek la Abbas moom daal di tuub dugg ci lislaam lii mooy xare Badar mu nekk de xare boo xam ne ci la lislaam amee ndam ndam lu rëy rëy rëy rëy bénéfice la ci la ci la ci lislaam amee bénéfice ci islaam am bari na waaye mën nañ la ci wax ne keroog la confiance gën am nag ci ci jullit ñi ak seen néew doole yëpp ne ndekete ñoom kenn mënul leen ñu am confiance ci yàlla am confiance ci yonent bi sallallahu alayhi parce que armée biñ dajet armée bu ko toll amut boobu waaw ki ñiñ dajet ba gañee leen noonu ñoo doon miir armée te ñoom dóor nañ leen loolu yokk na leen confiance ak lan amee nañ ci encore euh, gën a xam plan de guerre parce que bi ñu dajeek ñoom ci dajee bu mel noonu te loolu masta am loolu jox na leen expérience pour euh, naka la ñuy dajee ak ñeneen encore bokk na ci bénéficiaires yi ngi bénéfice wu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa gën na am tur nag ci ci réew ma nag ñu ne nag muhammad ak sahaaba yi muhammad ak sahaaba mi seen tur gën a rëy te eh, média yi gën leena tasaare fu nekk tur lislaam daal di fay àgg ndéeg xare badar waaw encore jullit ñi amee nañ ci ak ak yeewute bu baax ci naka la ñuy defaree seen armée bi ba mu gën a euh, gën a am avantage yooyu yëpp ci xare badar lañ ko jëlee xare badar boobu nag bañ fa bàyyeekoo yonent bi nee na leen i'malu ma shi'tum faqad ghafara allahu lakum yéen ñi bokkoon ci xare bii lu leen neexati def leen yéen yàlla jéggal na leen moo tax boo fekkee kuy def ku bokkoon ci xare badar bu nit ñee wax ci moom lu ñaaw see boo maandu ci koo xam ne yàlla toppatu ko dara yonent bi moo ne leen yéen yàlla toppatu leen dara dara dara toppatu leen ko ngoog moo ñi nga xam ne dañuy bind ci seen téere yi di dal Babacar ak Omar di dal dañoo xamut waaye koo xam ne ki yonent bi moo ne lu mun a xam yàlla jéggal na ko kon xare boobu tey la woon loolu moo doon nekk dars bi eh, may ñaan kenn ku nekk ku dégg audio bi kenn ku nekk na jàng tey jii balaa ngay naan téeméer ci salaatul fatiha haddiyal ko yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi ko ci bis bu màgg bi nga xam ne ci la sowee lislaam yépp waaw eh, su ne la salatu fatiha julli ci yonent bo mon rek def ko luma ma yo xamne da nga japp def ko haddi yonent bi ñaan ci sa soxla inshallah yalla dana ko fajj ci bes bu mag bi li mo doon dars bi ndax kérok bes boobu dafa metti won ba yonent bi nak joxe na ci leçon benen ci bo xamne ñu mën nañ ko ci tirer ci guddigi dafa nekk di ñaan rek di ñaan di ñaan di julli di ñaan di julli di ñaan ba Babacar ba tiin di ñaan kaalaam gi wadd Babacar for ko ne yàlla nangul na la yaa rasulallah yàlla nangul na la yaa rasulallah waaw ngoog kon nag nga déggee ci ne lépp looy dugguti rek jiital ci ñaan yàlla imaam Xasan mas na ko wax Cheikh Abdou Barham ne ko euh, man lépp lu may dugg suma ma ci jiitalee ñaan yàlla rek sama xel dal na ci sama xel dal na jaam bi jaamam yàlla lépp looy dugg rek jiital ci ñaan yàlla incha allah ñaanal yàlla ñaan lul yàlla su boobaa rek yàlla mën la ci dimbale yonent bi nag bi mu dajee yéeféer ci keroog affaire bi métti lool waaye mu def mujiza bu rëy malaakay yi wàcc xeexam malaaka di kéemaan dégg nga euh, benn saaba nee na dafa dajeeg benn yéeféer ñuy ñuy léewtoo rek mu gis séeféer bi lànqaañ rek daanoo te moom duuragul ko mu dégg benn kàddu ne uqdum yaa xay zoom uqdum yaa xay zoom mu jaaxle ci loolu trop bi xare bi jeexee nag mu laaj ko yonent bi ne ko man damay dajeeg diw sàngam ci xare bi wala balaa may ŋaat sama jaasi fekk na moom daanu na dee ma dégg uqdum yaa xay zoom mu ne ko jibril moo ko dóor xay zoom moomu mooy doon fasu jibril bi mu ne fasu jibril bi la ba mu ko dóoree mu daanu rek la ko wax nag xay zoom xay zoom avancé Euh, mu nekkoon du lu yéeme dégg nga bi euh, muy ñaan nag Babacar ne ko sa ñaan nangu na yonent bi ne ko waaw dëgg la parce que Jibril la nga na lee ànd ak Mikaayil ak Israfil te kenn ku nekk rek lu mat fukki junne yi malaaka ngi ci sa gannaaw ñoom ñëpp ñun la ñuy dimbale si yàlla nag ne dama li tatma'inna qulubukum dama wàccee malaaka yi pour seen xel dal rek waaye yéen rek bu ngeen leen attaqué woon yen a leen di man ci ndimbalal yàlla loolu moo doon xare ba dara dikkee ba ci digg bëccëg bi nag xare bi métti lool lool lool lool yonent bi daal jël ay jembaraay sëq euh, ñi ne suuf la ñi ne ay xeer yu sew la mu tibb ko xeer yi di sàbbal ci loxo yonent bi naan laa ilaha illallah muhammadun rasulullah ci làmmiñu arabu leer mu jox ko Babacar mu téye muy sàbbal mu jox ko Omar Omar téye mu ne delloo leen ma ñu delloo ko xeer yi rek mu sànni ko xeer yi mel ni bomb xeer bu ci dal ci jëf yéefir rek day génne ci ndong rek koku daanu mu jall ci keneen xolal bu yalla ne ko nak wama ma ramayta iz ramayta walakin allah rama rek ba ngay sanni ho ke rek ma sanni man yalla lolou moy xare badar yal ni yalla may deg ak topp yalla nañu yàlla fay yu doo fay dara bësal rek bu ko defé lo ñewati nga man ci am jaxla jaxna jeex yaay ci ko yor kay lan ñu dem abonné